أعوذ بالله من الشيطان يحدد منافع الأوتان président Macky sama soppe cofeel gi moo waral ma lay adressé kàddu yi parole yi mënoon naa la ko bind lettre wala ma jaarle ko feneen waaye damay préféré Sénégal yi nekk ci réew mi ak ñi nekk ci bitim réew ñépp jot ci pour ëllëgay tax damay bañ non seulement visionnaire la waaye damay settantal ak xor-xoral damay bañ rek da daloon Mobutu dal la Mobutu dafa am yu ma ko waxoon ba noppi jëloon seede ni ko yii ma lay wax boo ko deful dinga daw génn réew mi la ma ko waxoon noonu la demee loolu laa lay bañal moo tax li may wax nii damay jël seede Sénégal yi yépp sa soppee wax ak yow xam nga ni sa soppe la te yaa ma waxoon ci téléphone ni ni man sawaay waay laa bu fekkee sa laa nag su ma la waxee dëgg danga koy nangu dëgg gi mooy lan fii nga toll nii yow ak ci mandat bii li lay arrangé arrangé waa réew mi mooy sa parti bi nga wut wóolu dénk ko ko taxawal gouvernement d'union nationale kuy borom xam-xam ku nekk technocrate yi ak ñi nga xamante ne bi ay homme politique la ñu am homme politique bokkut ak politicien nga taxawal gouvernement d'union nationale boo xam ne ñëpp ci gis seen bopp ñëw ma la nga bàyyi sa parti mais da nga koy dénk ku la doy concentré wu ci mbirum réew mi boo concentré woo ci mbirum réew mi bientôt fii ak ñaari at ñetti at da ngay am résultat bu doy waar bu satisfaisant boo xam ne day bégloo Sénégal yi soppee wax ak yow nag parce que dafa am lu ma lay bañal te man visionnaire la te dafa am yuñ ma woon am yu ñu ma wax moo tax mënumaa ñàkk parce que ëllëg gi si biir damay jël peuple bi seede waaw ma la nga def li ma wax de ndax chef de tàng waaye am na droit wax le li ma gëm waaw ndax man bu fekkoon keneen nag fi nekk ku dul yow ba tey sama révolution taxaw na bu yàgg parce que démocratie bii dañoo yor bu ko gën idéologie yi fi nakk nii yi ngeen fi doxale réew mi danoo am bu ko gën waaw danoo am le réalisme africain waaw léegi nag man li tax ma jàpp la ñëpp xam nañ ko li tax itam duma la lâché ñëpp xam nañ ko bu loolu amee nag bu dëgg jotee dama la ko war a wax publiquement waruma koo xumtoo man dafa am lu ma lay bañal te itam nag fi mu toll nii peuple bi peuple bi wax dëgg yàlla ñoom lay gën a féeteel ci yow ndax sama relation ak yow relation personnelle la ci président bi ak citoyen bi ak ñaari soppe waaye bokkut ak nag la majorité du peuple waaw donc bu ngeen fexee ba peuple bi kontaan man ci laay kontaan waxuma man sama bopp ak sama njaboot de ak suñu projet yu ngeen di tànqamloog yooyu waxuma ma ñor waaw lii sama métier mooy tagg Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul loolay sama métier aw ma soxla ci leneen bañ naa ko ba fi ñu toll mbirum war a waaye yi ñuy wax oto nii dama fas yéene di wut yu màggat waaw <laughs> ndax ko tedd gi dafa am lu ma woon ba noppi am lu may dunduloo waaw dunduma leneen bu ko defee nag yow te dama bëgg am ndam ci yow dama bëgg am ndam ci yow li tax ma bëgg ko mooy li tax ma jàpp la jërëjëfee Sëriñ Bamba ja ca Mbàkke moo tax looloo dox diggante ak bu ko defee nag moom fi ñu toll nag suñu projet de société war nañu ko génne dans quelque temps bu génnee bu fekkee intégré wu leen ko bu ngeen ci nanguwul dañuy devenir nag ay opposant parti de la vérité day mujj devenir parti d' opposition te yooyu yëpp mën naa ñàkk wax dëgg yàlla lii daal laa ne la woon danaa la ko adressé waaw te lu ci xaw a ñagas nga baal ma ko waaye li mënuma koo ñàkk bañ a wax ah, dina am nag yu ma leeral ci fan yi ndax dama war a nekk dajeeg yi xibaar yi am lu ma leeral yu baree baree bari ndax sama révolution dafa jot ci fànn yëpp la waaw religieusement culturellement politiquement waaw te ma sama révolution moom ci domaine yëpp la waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah ba ngeen waa réew ngeen baal ma àq nag ma salaam